mbokk jullit am di soppi si yàlla asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu gannaaw bu ñu sant yàlla dooli sant yàlla bu baax di sant yàlla mi ñu may kàttan may ñu fekkee ba ndeeli si waat yi dafa waxtaani fajar di ko alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi daiman abada alhamdulilahi kasiran alhamdulilahi ala kulli haalin mooy ne ñu ngi sant yàlla sant bu amul àpp amul di julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak waa kiram ak saxaabaam yi ak képp ko si ñooñu waaye yàlla mi jaamal yàlla mi defal mi saafara yàlla doolu safara muy rabbana atina fi dunya xasana wa fil axirati xasana wa qina azaban naar mbokk julli ñëwaat fii si daaray Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallam bi jàngalekat ma boobu ba léegi ñuy waxtaanee si weer bu tedd bi weer bu màgg bi nga xam ne si nekk muy rajab mbokk jullit muy wéer boo xam ne rek mu ngi fàttali nit ñi di ñuy fatili nit ñi ki nga xam ne yaa ngi amoon bor bori koor ñu ngi lay eh, fàttali nga fay sa bor bi ndik suñ ne rajab lan lan lañ say teg muy chaabaan chaabaan ñu ne ramadaan kon képp koo xam nga bor si wéeri koor bi passé daaw muy góor muy jigéen di góor na am bor ñu na naka laa amee wér ndik nit ki mun ngaa feebar si jamono weeru koor bi nga amoon ay fan yoo dog nga ne dinaa ko fay dinaa ko fay dinaa ko fay bi waxtu di dem bu boobaa nag balaa ñoo ne ramadaan wala weeru koor war ngaa mun a góorgóorlu nga fay fan yooyu nga xam ne yaa ngi ko duggoon ida feebar moo taxoon wala tukki waaye tamit jigéen moom boobu moom duñ koy wax sa ñoom xam nañ seen boppa bon nag ñu ngi fàttali suñ boppa di leen fàttali ne ah waxtu bii nag ku amee bor na nga góorgóorlu nga fay ko balaa ñoo dugga si weeri koor bi mbokk julliti muy loo xam ne rek luñ bëggoon a fàttali suñ boppa di ko fàttali mbokk julliti bon nag yonent bi aleyhi salaatu wa salaam dañoo ashhurul maanaam weer yi nga xam ne yàlla daf leen ormal nga xam ne weer yoo xam ne baakaar si maanaam dafa rëy waaye tamit tiyaabu tamit dañ koo gën fulandil yëndib ali alayhi salaatu wasalaam di ñu wax si xadis boo xam ne muslim moo ko solo mu ne assanatu isna achara shahran minha arbaatu hurumun salaasa mutawaliyatin zul qa'da wa zul hijja wal muharram wa rajab wal rajab shahrun mudir alladi bayna jamaadi wa shacbaan قال ابن عباس احتص الله تعالى أربعة أشهر جعلهن حرما وعزم حرماتهن وجعل الذنب فيهم وجعل الذنب فيها أعظم وجعل العمل الصالح وأجر أعظم الله أكبر بون بوك jullit ني نيك سي ويرو رجب سي وقتان بي باسي واخون ناي سي لو lu واي نيك دا فا ام lu نيت ني دي am ay itiqaad maanaam ay ngëm-ngëm yoo xam ne ñu ngi ko gëm si wéeri rajab ñeneen si dañoo ne dama ko war a oor ba mu jeex loolu du sunna yaa ngi def lu uti ak lu yonent bi salaa sallam jàngale ak lu mu doon def wéeri rajab kuy oor ooral comme fan yi nga daan oor mooy loondi ak alxamis comme ni ko waxee wala suñ demee am fukki fan ak ñett fukki fan ak ñeent fukki fan juróom muy ayaamu bii di yooyu mooy li nga xam ne mooy sunna wi waaw waaye jaamu yàlla boo si def tamit baax na waaye bul ne rek dama ko jagle si weer bi laa koy def déedéet am na ñoo xam ne tamit dañoo bàyyi seen asaka nee na fekk seen waxtu génne asaka sax jotut waaye ñu ne comme wéeri rajab rek ñu ne xaaral ñu génne si suñ asaka fekk waxtu bi jotut bu dee ki nga xam ne nag waxtu génne asakaam si weer bi la euh, tombe kooku moom dara nekku na ko si génnee waaye bul jékki-jékki ne dama ko denca ba weer bi jot fekk waxtu bi nga ko waroon a génnee jot na nga ne dama koy bàyyi bi rajab ma génne ko si weeru rajab boobu du sunna yonent bi alayhi salaam jàngale ko loolu mooy bidaa yi nga ne bari na li ngay dégg si weer bi yu bëree bari am ay guddi yoo xam ne dañ koy jagleel ay naafila yëpp yëpp mbokk jullit yi man zaada fi amrina haada ma laysa minhu fa huwa raddun yonent bi salaam mu ne képp koo xam ne yokk nga si suñ diine si suñ diine bi loo xam ne bokku ci dañ la koy deeloo mooy ne amalu la benn jëriñ te kenn soxlawu ko yow dañ la ko delloo nga foog ni yaa ngi si lu baax fekk kero qiyaama du la amal benn jëriñ boo ko julliti bon nag nañ toppa sunna yonent bi alayhi salaatu wasalaam comme ni ko yàlla subhaana taala waxee oma ataakum rasulu fa xuzuhu oma nahaakum anhu lu la yonent bi alayhi salaatu indi nañ ko téye waaye lu ñu teree nañ ko ba nañ ko ba ndax ñu a mu ci àdduna mu ci àllaaxira hadis bi nag yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne assanatu isna mu ne at bi fukki weer ak ñaar la fukki weer ak ñaar waaw twelve months minha arbaatu hurum si fukki weer ak ñaar yooyu yàlla tànn na si ñeenti weer yoo xam ne yàlla daf leen ormal daf si xaraamal baakaar daf si xaraamal tuurante deret def si xaraamal ay jow def si xaraamal ay sàcca def si xaraamal ay njaalo lu nekk la si yàlla xaraamal lu bon rek yàlla xara te xaraamal na ko si yeneen weer yi sax waaye si weer yi la gën a amee doole maanaam bàkkaar yi weer bi ak yeneen weer yi nga xam ne passé na nañ leen ko tuddaal pour ñu xam ko bàkkaar yooyu ute naa bàkkaar yeneen weer yi bon yonent bi salaa sallam bi ñu wax nag ñeenti weer la mu ne salaasa mutawaaliyaat ñite yu teglante la ñite yi dañ teglante maanaam dañ toppalante muy ban zul qaada mooy weer bala xaj ak weeri xaj ak weer bu njëkk si weeri sëriñ waaw muy zul qaada wa zul hijja wal muharram muy ñetti weer yu toppalante yooyu yëpp ay weer muharram yooyu jamono jaahiliya sax bala islaam e ñi nga xam ne yéefar lañu su weer yi jotaan duñ daan dañ daan bàyyi lépp lu ñoo def si lu xeex ak tooñante yëpp dañ ko bàyyi yàlla subhaanahu wa taala wax si alquran wala tazlimu anfusakum mu ne buñ leen tooñ suñ buñ tooñ suñ boppa tooñ suñ boppa nag mooy bàkkaar yi ñoo def si weer bu maaga bi weer bu tedda bi mbokk jullit nañ leen bari lu ñoo jàng alquran di tuub di def istixfaar jaamu yàlla comme ni ko daan jaamoo xam ne tiyaabu loo ci def rek yàlla subhaanahu wa daf koy fulandi def koy yokka waaye bàkkaar boo ci def tamit yàlla subhanahu wa taala daf koy gën a réyal daf koy màggal bon ñaan yàlla subhanahu wa taala eh, mu ne nag wa rajab rajab mooy buñ nekk ni mooy mudar rajab nag eh, ibnu hajar asqalaani wax na ne am na ñaar fukki tur ñaar fukki tur lañ tuddee weer biñ nekk nii muy rajab waaw mu ne moo nekk diggante jamaadal ula ak chaabaan waaw loolu nag def day nekk weer boo xam ne dafay fàttali nit ñi pour ñu fàttali ku ne ah, am na gan buy ñëw de am na gan bu ñëw séntu de muy lan weeri koor su ko defee ñu gën koo waajal su ko defee suñu ne Shaaban rek xamal ne Ramadan moo see tegu waaw boo ne rajab di nga ne Shaaban Shaaban nag nit ñi dañ dee fàtte waaw da ngaa gis ne caameen yi dañ dee fàtte fàttelu weer boobu bañ di jékki-jékki ñu ne leen subay moo weeri koor wala ëllëg mooy weeri koor rek ñu commencé di xay mbiri gaaw na bon nag fàttaliku si weer boobu am yonent bi salaa sallam di wane ibnu abbas mu ne ixtasa allahu subhanahu wa taala arbatu ashhur yàlla subhanahu wa taala tànn na ñeenti weer yi def leen weer bu normal weer yoo xam ne weer yu foor la mu ne nag baakaar si baakaar bu rëy la baakaar bu si ne def dafay nekk baakaar bu rëy waaye tamit tiyaabu bu si ne def rek dafay nekk tiyaabu bu mag a mag a mag a mag bon mbokk julliti weer bi nañ leen sàmm suñ laamiñ nañ xam fi ñoo ñoo wax ak fi ñoo dem nañ bàyyi joow yi joow moo gën yomb si ñun waaye mooy bàkkaar bi gën a rëy namima jotali wa jaxase wax jaxase ni diggante nit nit nañ nañ ko moytu mbokk jullit waxtu bu nekk nag dafa xaraam waaye si wéer bi nag moo gën garaaw mbokk jullit moo gën a mooy ne ndik dañ koo gën a fulani bu dee benn yàlla subhaana taala mën na la ko fay ñaar wala ñett wala juróom yàlla rek a xam lu la ko fayee yeneen wéer yi nag soo fa defee bàkkaar benn lañ laa fay bon nag dañ leen moytu di def lu baax di saraxe di jàng alquran di bari istixfaar di jokkalante ay mboka comme niñ ko daan defee si weer yi su ko defee nag tiyaabu bu gën a yokku bon yàlla ñu yàlla may fekkee ay rajab yu bare bare bare yàlla subhaana taala nangul ñu suñ jaamu yu yeggal suñ baakaar yi luñ ko yàlla nangul waaye luñ si jaamu tamit yàlla nañ ko yàlla nangu euh, si jaamu tamit yàlla nangul ñu waaye luñ tuub tamit yàlla subhaana taala nangul suñ tuub jégal suñ baakaar allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin amin